xam amin waaye delloo ziar bu wér a wér yàlla sa gémmiñ am barke ba déwén ñu may ne ajaratu dërëm ah, ah, tubaarkàlla sama rakk ji jóob jàkkaarloo yow nag damay neex lool ah, ndax neneen eh, eh, laaj dañ ko laaj loo bokk tubaab mun a yàgg te yow danoo yàgg kontaan naa si yow ak waa Dakar lay bu baax a baax ñi nga xamante ni jamono ji ñoom ñoo ñuy seetaan ajaratu nag dañuy door waxtaan wi ci li nga xamante ni moom moo di actualité du ñàkk euh, gis nañu euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sa ay morom di sa ay nawle nekkoon ci télé bi ñu yóbbu leen frigo ci duñu ci mm-hmm. yow ba tey yaa ngi bi nga xamante ni say nawle lañ rawatina nekk ci télé bi euh, télé macha allah maa ngi fi ma daan def ba tey li ma daan def man maa ngi fi ba léegi mm-hmm. ku ñu frigo ku ñu congélateur rek ku ñu galacé laa ci yemale man kenn galacé wu ma du gis ne ma émission laa wàccee léegi comme maa ngi def li may def maa ngi bay sama waar comme keneen ku ñu frigo man sax euh, ku ñu frigo ah boon tey jii ne question boobu bu ngeen ko laajoon duñu ko nuyu wala ñi nga xam ne ñoo yor programme ñoom dinañu xam lu baax lu ñu leen di tontu mais man tey xaw ma ci ku ñëw ku ñëwul ah, l'essentiel sama jour bi nga xamante ne man war naa cee bëggal Sénégal chaque jour maa ngi teew daal. Mm-hmm. d'accord yaakaar naa ne nekk na lu am solo mais tey en tant que animatrice. sa sa ay moroomu nawle nga nekkandoo woon ak ñoom doon gisante ak ñoom saa su nekk ñu xëy xëy gisatuñ leen si télé bi euh, ngi ci dox li ci que dërëm dafa croisé ay loxoom. ñi ma daan nekkal yëpp maa ngi nekkal ñoom ba tey mhm. man ñëpp ku ma daan nekkal seetu bi wala Dakar na door paar ngi ci télé bi comme aw ma ciy dox ko wax man de ñi ma daan nekkal man man Guèye Mado ñoom ñëpp ñu ngi ci télé bi. Mhm. gis nañu ki nga xamante ni moom moo ci Lamine Samba génn na def ay révélation wax ni mi ngi jot salaire am mais dañu ko yóbbu frigo te ku ne xam na ni euh, kuy watoo làmmiñ bu noppee dafay rappelé loolu du arrangement moom mu wax ko euh, bi mu génnee wax ko mu gis euh, mu def coow ba ki nga xamante ni jiit la ci télé bi génn moom itam wax est-ce que jàpp nga ni tey li ni mel jaroon na ko non jaru ko parce que nit ku nekk daal Lamine sama mag la mm-hmm. te moo ni woon buñ ko doon dàq di ko dóor du fii lay retraité te man gëm naa ne fii lay retraité li ma leen waxoon rek ndorteel la fii famille la te famille bu ne yaa xam na ngay tëjee sa boppu jinax mm-hmm. yaa ngi dégg ñëpp ñu ngi si jàmm Euh, xëy na programme yi la ñuy defaraat xëy na tamit boo gisee ñu frigo ñu ci bari frigo ñu leen sax ñu ngi defaraat programme te bis bu programme yi paree xëy na li ñuy waajal Sénégal yi ndax ñun fii télé surprise la mhm. sa luy ñëw rek surprise lay doon ci ñun surprise lay doon ci Sénégalais yi nañu xaar rek te bañ a xaadi te dal mhm. ndànk rek bàyyi coow yi d'accord ginnaaw bi mu waxee est-ce que jàpp nga ni euh, génn wax bi euh, avantage la woon ci man ba tey sax dégguma loo Lamine Samba wax ndax man duma seetaan TikTok xaw ma lu mu wax wax dëgg yàlla mm-hmm. Mm-hmm. seetaanu ma ko picc bu ci naawit naawaloo lenn loo xam ndax ñu naawoon waxit ñooy ñëwaat mujj noppi mm-hmm. nañ dal rek buñu dalee rek nee nañ mbir bu amee ni ci gën a teey gën cee dal rek ñoo ciy gën te bu ñu dalee rek lépp dana rek yow lan neex na si xol programme yi la ñuy defaraat te il faut ñu dal. ah mais est-ce que la ñuy la ñuy defar parce que gis nañu ne Samba moom moo doon def émission jongante mm-hmm. gis nañ ni euh, place boobu euh, toogatu fa euh, ki fa mën nañ ni sax buñ ne ki fay toog mais kañ fay xaw a seen moom mooy Malick Thiandoum moom moom lañ wax dafa daal di bumax rek ki nga xam ne moom moo di Lamine Samba am na si sax ñenn ñoo xamante ni nee nañ Euh, ñàkkul lu ko def moom dañu ko bëggoon dañu ko fonkoon ko fu kaw mm. man de loolu seen gis-gis ngeen wax ah, mais wax dëgg seen gis-gis ngeen wax yow sa gis-gis sax laay wax ndax man gis ma fu ñu buuxante gis ma fu loolu yëpp am mm. ni may wax rek moo ci am mbir su amee mm. nañu dal ñun ñëpp rek ndax fi ne ni question yi nga may posé man ah, lu ma la ci wax xaw ma ci aani xaw ma ci programme TFM lenn lu dul dërëm Xadija dafee dërëm tey am nga émission moo ñëw def sama émission ñibbi mm-hmm. leneen lu ma ci wax wax naa ginnaaw dëgg lépp loo bëgg lu la leer ci loolu tey nii boo demoon ci Bouba Ndour wala ku ci mel ni Ndiaga mm-hmm. dañ ci am lu leen leer lu mel ni nii dinañ am ak mm-hmm. euh, bi bi waa TFM na ñu jël place ñu teg ñaar ñëpp samay mat lañ Lamine moo ma yar daan ànd ak samay mag ca faas ma juddoo faas yaroo faas doomu faas Lamine du ma ko waxal lenn lenn lu dul sama mag la Malick Thiandoum di sama xarit di ma conseil ci lu bari bëgg ma bëgg sama rakk ci làmb ji comme aw ma lenn lu ma leen di conseil ñoom ñu mu mag ci métier mi jiit ma ci métier man aw ma benn conseil wala benn conseil déedéet ñoom ñaar ñëpp am talent ñoom ñaar ñëpp mën seen métier. moom nag dafa mel li mu yoroon da ko sotti diggante Walf ak soog a ñëw TFM est-ce que foofu bale amu fa déggoo li ma la wax tey rek bu dalee lépp ay réglé wu. d'accord macha allah am na solo yokku bi ba a jeexagul ginnaaw Lamine Samba ki nga xamante ni moom moo di Bijou Ndiaye moom itam génn na yooxu na ba fu yooxu yam ndax moom hmm. nee li ñu ko def moo raw frigo te ku ne xam ne mbir euh, dafa metti ndax tey euh, ñi nga xamante ni dañu bi amee seen maccaat mooy génn bi dërëm fi muy amee maccaatam mooy mu euh, ci wàllu li ma la wax rek moo ñëwaat ba tey frigo amu ci ajaratu ah, yow yaa congélateur déedéet rek teewlu ma la li ma la wax moo fa nekk parce que man loolu laa gis yaa ngi dégg programme yi dañ koy defaraat bi coronavirus ñëwee ñu ci programme yëpp a taxaw mm-hmm. nañ waxal yàlla rek corona jeex na mais defaraguñ ba léegi programme bu taxaw léegi nag loolu boo ci nekkee di wax li may wax rek nanu dal te tey rek lépp dina rek la waat ci mm. kàttanu yàlla parce que xam naa ne ñun suñu njit ay professionnel lañ ñu xam seen liggéey xam li ñuy def te tubaarkàlla macha allah dinañ ko tegaat ci yoon tegaat lépp ci yoon ci mm-hmm. kàttanu yàlla mm-hmm. nañ leen ñaanal rek yàlla bàyyi leen fi ñoom buuba ak njaga ñoom ñi nga xam ne ñoo yor programme bàyyi leen ak seen xel te ba mm-hmm. coow li coow fajul dara bu ñu dalee rek dal moo dàq ci lépp parce Samba seen coow li nga jaru ko daal si man parce que ku nekk ak sa gis-gis sama gis-gis daal xam naa ne bu ñu tuut teeyee tuuti rek dal lépp dina rek la waat si jàmm mm-hmm. parce que tamit télé mënoo chaque jour nga présent mm-hmm. yenn saa yi da ngay ñëw yenn saa ñu stand by pour boo ñëwaatee indi doole mm-hmm. li ñuy wax rek xar dawul bëgg a dem doole lay wuti nañu wutaat doole rek ñëw toog d'accord maanaam dañoo bëgg ku ñu gisee ku bees dañ lay jël ak euh, euh, man de gisuma loolu fii daa xam nga lu ma fii gis défendre rek dama war a défendre parce que nee na nit da ngay mën sa nit te man Futurs Médias defuma ko société kër laa ko def famille laa ko def sama famille ak képp ku ne ci famille bi loo mën a def ak lu mu mën ci doon man dërëm ànd naa ceeg yow su ma la fekkee ngay xeex damay dóor ba pare doog a laaj ñu jot lii laa am kon euh, li nga xamante ni dañ wax mooy dañuy ki nga xamante ni euh, moom moo di euh, Awa Gaye jël dafa doon def Awa Gaye la ñuy faral di loolu moom sénégalais yi waaw loolu waxu sénégalais yow xam nga Sénégal li fi xew bi bari na man gisuma loolu man gisuma loolu ndax man fa ma toogoon ba tey maa fi jiitu ñoom ñëpp te maa ngi toog foofu mhm. man gisuma loolu li ma la wax rek muusu TFM sax man buy xeex damay cat Mm-hmm. képp ku jege TFM rek bul xalaat dërëm wax ci lenn lenn loo xamante ne rek ku ma ko waxoon du ma neex ñun ñëpp mm-hmm. samay famille lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo yëkkati ñoo ñooy tegandoo laa wax d'accord eh, ñi ngi xam ne ba tey eh, li nga xamante ne moom moo di télévision Futurs Médias mm-hmm. wax dëgg yàlla nekk fii tam neex na lool comme nekk Dakar laay ni mu neexee mais eh, nee nañu képp ku nga xamante ni daal doo faral di dunguru maanaam doo faral di di mar tànku nit doo yàlla loolu moom kàddu la boo xam ne ñu ci bëri sénégalais dañ lan ngay tontu loolu waxu sénégalais la parce que man maa ngi fi te dunguwuma kenn te maa ngi fi 2012 ba léegi fi ma toogoon maa ngi fi toog xam fii lan moo fi nekk travailler et toujours travailler talent gëm sa bopp respecter sa bopp xam yaay kan ñoom it ñu xam yaay mhm. leneen lu la fi waay wax waxu sénégalais nga wax comme seen wax la ñoom sénégalais mais fii moom dëgg rek moo fi am d'accord su ma déggee bu baax a baax li fi nekkoon ñu frigo ne liggéeyuñu déedéet waxuma la liggéey ñu ba tey loolu yow sa wax la ak sa question waxuma la liggéeyuñu ba tey dama ni la li ne si kër gi mhm. liggéey la travailler boole ak organiser loolu fi ah, nekk déedéet ñoom ñi ngi fi ba tey ndax yow bu fekkee ne nekkoo fi mhm. te ñu ngi lay fay sa salaire looy wax am na ñoo xam ne tamit ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi liggéey te kenn fayu leen mhm. nañ sant yàlla am ñoo xam ñi ngi xëy suba ngoon yore micro di wax te kenn weer du dee merci sax duñ ko dégg yow ñu ngi lay fay même buñ la frigo ñu ngi lay fay doo toog man loolu laa gis déggoo li ma la wax dërëm muusu TFM sax buy xeex boo ko fekkee man mhm. man dërëm damay sot ba pare doog a lijjanti ndax moo tooñam tooñu xanaa xam nga. yàlla tere tere <laughs> euh, toog réglé rek ba ñoom ña ma frigo jubalaat euh, ma ci aw show bi ma show. ah waaw <laughs> ah, macha allah <laughs> nekk na lu am solo fi may tëjee sama question moom mm-hmm. wax naa la ko sànq dañuy faral wax ni kuy liggéey télévision euh, soo leen dul dungalu duñ la teg place mm-hmm. am si ñenn ñi nga xamante ni dañ naan gërëm saa ñu koy gis si télé mi ngi génn à chaque fois te itam mm-hmm. ba tey kenn frigoowu ko ñenn ñi jàpp ni gërëm dafa jël moom itam yoonu di dunguru waa TFM euh, parce bi nga xamante ni am na ko waaw ba tey dunguru sa chef moom dara nekku ci ma du ba mu saf-saf damay dunguru Njaga Nduur damay dunguru Buuba Nduur waa léegi loolu day tere bu ma ne ma nekk dërëm mais yooyu seen wax la ñoom ñi xalaat lool mais fii xam lan moo fi nekk dëgg la vérité moo fi am mhm. travailler rek kese ñiy liggéey ak ñiy wër di wax nag bokkuñu bu weddee salaire mhm. ñun waxuñu defuñu travail daal la ñu ne liy bégal askan wi liy yee askan wi liy ubbi bëtu sénégalais yi di mhm. borom kër gi wax rek nanu yaatal ku yaatal danoo jaboot danoo jaboote loolu d'accord macha allah nekk na itam lu am solo di leen fàttali mbokk yi yéen ñu topp ci Dakar Live TV ak li nga xam ne moom info. Euh, di jégalu bu baax a baax ci euh, euh, a bu baax a baax bokk yi ba tey dañuy wéyal ah. du ma toog ak yow ba ñu mën a laaj ci li nga xamante ni moom moo fi jot a xew ci jamono mm-hmm. mm-hmm. mu nekk itam lu xaw a doy waar ay arrestation yi nga xamante amoon na ci waaye itam ñu daal di koy dindiwaat ban jàngat nga def tey ci diggante Ndiaga Ndour waaye tamit ki nga xamante ni moom moo di El Hadji xaw ma ca dara xaw ma ca ah. wax a ah, nii bee ndax wóor na rasulullah ni ñu ko déggee noonu rek laa ko déggee géey njooro munuma cee wax dara dara mhm. ndaga sama xarit la sama càmmeñ la sama lépp la mhm. dégguma ci xaw ma ci tus lu ma la ci wax wax naa la ci ginnaaw dëgg lu dul ñaanal ko daal yàlla saxal ko fa ndax dëgg man dara dawuma yoole déggoo li ma la wax muusu TFM muus yi di taxawaalu biir TFM bu ma leen fekkee ci mbedd ma ñuy xeex ak beneen muus damay sotal sama muus ba pare même bu ñu deful dëgg man damay ànd ak sa nit da ngay mën sa nit ma teg ko ci man sama nit képp ku nekk TFM ak loo mën di def man ànd naa ceeg yow ba ba may gis yaa tooñ te même bu fekkee yaa tooñ du fii laa la koy waxee ci internet bi. kon li nga xam ne def man xaw ma lu mu def lu mu bàyyeeg lu may am. même ko xamul da ci geste bi nga xamante ni def ban geste man xaw ma lu mu def parce que man gisuma lu mu def fekkee ma fu mu defee. waa jiñ nga wax dem ci wàllu li nga xamante ni moom moo di signal. ak ak lu ni taxaw ngir ànd ci loolu même bu fekkee ni tey dañu jox dëgg ki nga xam déggoo li ma la wax. di xanaa wax bi kay yow dangaa déggul olof. nit damay dangay mën sa nit maa nga mën a dikk man lu ñu def ànd naa ci ñoom juste ba ma dee rek ñoom ñu de mhm. lu ñu def tey bu ma la fekkoon ngay xeex ak kenn ku nekk TFM dama lay dóor ba nga tëdd mhm. waaw bu ñu wéetee nag suñu biir lenn li nag pootum biir la ñu lijjanti ko waaw ah mais du du yàgg ba ma taxaw fii di leen wax lenn lenn mhm. ah, nga gisee ci diggante télé ak télé ndax ku ne xam na ni ginnaaw RTS 2STV moo ci moo fi nekkoon ginnaaw bi ñu gis TFM itam daal di judd euh, mm-hmm. gisee geste bi laataa ñuy puus loolu El Hadj la rek ak moom geste mag ñam ko sekkal man yóbbu ma ne sax loolu am na ci réew mi mm-hmm. am nga dërëm lu mu xam kaay wax divertissement kaay wax lu yee Sénégalais yi mm-hmm. kaay bégal réew mi loolu daal loo ma ci laaj loolu hmm. waaye leneen. Hmm. mënoo wax ba ma xam ci dara. d'accord <laughs> d'accord macha allah am na solo ginnaaw loolu nag ba tey dinaa laaj li nga xamante ni euh, bokk na ci actualité bu ñu tëjee partie boobu ndax gis nañu ki nga xamante ni euh, moom moo di Mbaye Warax ak ki nga xamante ni moom moo di Sanekh jamono mm. ji coow bi dox ci seen diggante yaaxante bi saa neex di génnee li nga xamante ni fukki at ak ñett ci ginnaaw la amoon moom itam bay warax di wax saa neex li nga xamante ni xamal na ko ko yow nga nekkoon ci aar ku ne xam ne ne am nga ak ñoom relation naka nga jàngatee bi dugg seen diggante léegi léegi rek bi may dugg ci maa ngi dajeeg saa neex mm-hmm. moo mbay warax nee naa la dañu nekk akru zaman mujjub jamono mm-hmm. loo daawul gis ngay gis loo gaawul dégg ngay dégg mm-hmm. mais loolu ñoom la rek ñoom la rek déggoo ma de ñoom la. ñoom la rek. parce que ñoom la parce que ñoom ba ñuy ànd. bu tey dégg nga li Sanekh wax seen kër la nekk am na fi plus de treize ans quatorze ans comme famille la rek. Mm-hmm. le le linge sale la en famille. nañ ko réglé seen famille rek te nit ñi tey ci te dal ci rek man daal loolu laa am may wax. Mm-hmm. sortie bi nga xamante ni Sanekh def ko yukkil ko li mu ko xamaloon lépp est ce que ko ñaari góor ñi ànd ci nekk xamal sa morom leen. parce que tamit bu fekkee tamit keneen ki gis nga ñaar ñuy ànd. Mm-hmm. nañ ci maandu parce que keneen tam bu génnee ba magam ja wax ba wax boo xam ne mag jaral na ko magam crise moo tax la sant mhm. Gueye la sant te ku sant Gueye ku ne am na lu ñu ca wax baax nañu mën nañ laa may un mais dañuy am lumbu nag d'accord mais est-ce yi nga xamante ne yëkkati di xam ne ni këram la nekkoon néegam la doon fanaan lalam sax la doon tëdd est-ce jaroon na ko loolu ñoom la déggoo li ma la wax ñoom la rek dañuy waxtaan ci waa nit nit tey ji ku nekk ni nga tolloo rek loolu ngay jëfe mm-hmm. déggoo ma de mm-hmm. tey dërëm nu mu tollool noonu la jëfe keneen ak keneen nu mu tollool noonu la jëfe Mbaye mm-hmm. Wara li nga xamante ni tontu na ko itam yaakaar naa ni bu sénégalais yëpp dégg la tontu bu sénégalais itam daal di bàyyi xel la moom nee moom mooy Messi ginnaaw jóge na foofu foofu nga xam ne moom mooy Soleil Levant dootul safe ak kàddoom yooyu naka ni ko ah, yi ak yow mi ma koy posé question xam nga. ah xam nga kay léegi déggoo li ma la wax man nekkuma soleil levant musuma def produit soleil levant lu ma ci wax lu dul ñaanal saa neex sama mat di ko ñaanal ko muñ te xam ne ku jiitu jiitoo dara ndax ñi oto bu jiitu rek lañuy ñuy mm-hmm. te ku la jiituwul doo ko ne sa doq duuf na. tey su ma la jiitoo rek ngay gis sama dox di leen ñaanal ñoom ñëpp rek xolu mu xaw ma mbay warax musuma koo xam déggoo li ma la wax muusu teefe man dërëm sama fële wax ba mu baax damay farak moom ba bu baax génn gi man déggoo li ma la wax sama nit dama mën sama nit te nit da ngay sa nit sama nit yow tey jii boo defoon dara tey fii TFM dama lay dóor ay kurfañ ba nga tëdd ba pare doo a lijjanti sama nit ndax moo tooñ wala tooñu mhm. barki rasulaay li saa neex lu mu mën di mel sama nit la mhm. keneen ak ku def sama nit la loo def man ak yow la après la ma lay wax du ci fii ci caméra après suñu wéetee te ma te ma war la ko wax ñu wax la ko war ma la ko wax ma kuul kaw nag lañ ko mën a tuddee euh, ñàkk ngor lañ ko mën a tuddee hmm. lan lañ ko war ndax dafa génn wax ni euh, moom dañ ko doon compal rek compal lañ ko doon def musuñ koo fay xanaa ñu fay ko ci suwa mais wiiri wiiri bokk ci lan ngay wax suñu waaye nag euh, tumuna di teew ñuy nataal ndax sama mag taxaw na wax défendre boppam wax leen ku ci nekk lan leen daan fay comme kay wax ji frankulaayu na léegi mhm. ku wéet xam sa bopp mais waaw loolu ñoom la rek yow yaa gën a xam ne Sénégal ku def ñu wax ku deful ñu wax mhm. ku bàyyiwul Macky Sall bàyyiwul Youssou nga xamante ne lu mu liggéey sénégalais yi ñoo tax mhm. lu mu liggéey bokk na ko askan wi doo bàyyi keneen na ñu ñëpp muñ rek te xam ne liggéey buy dox moo wax ñooy am jàpp mi ngi dox ah waa ku mu déranger yow la rek mais mi ngi doxal te sénégalais yi bëgg nañ ko ah. macha am na solo ba tey rek dañuy daal bu wéyal euh, beneen question bi nga xamante ni itam du ñàkk ndax ku ne xam na ni dërëm nekkoon na ci nga xamante ni moom moo di El Hadj Koutia euh, a euh, di ko jaajëfal bu a dina wax nag saa su nekk maa ngi lay wax waaye loo ma daw daw daw dinaa la jàpp incha allah tey lan ngay lan ngay wax ndax Koutia moom ay mbiram boobu xaw a doy waar waaye la fekk raag la ba nga doy na sëkk ñu xëy a xëy ah, mu mel ni ab acier bu ñu sànni ci télé bi euh, ah. tey loolu mbir mi doy na baax na daal lebal nga ko xam ni bu bu tontoo barki rasulaay nga xam ni lépp dëgg la yoo xamoo Kouthia wala da nga koy séen nii ci télé baax na ba mu fekk la fi nga naan ko acier nekk tudd nga ku baax ku laa biir ku mën a koo xamante ni alalam du ko boole kenn nee naa leen woon ba mu demee TFM famille la famille nag nag moom famille la rek ku ci mérite da nga dellu si waat TFM mhm. famille la li ma la wax moo nekk mhm. fii famille la mhm. dañoo nekk ak suñuy mag suñuy nijaay suñuy papa ak suñuy tanta ak suñu yaay ku ci mel ne tata Oumy Ndiaye mooy suñu yaay ñëpp ci télé ak euh, mère Fat Bintou ñi ci des suñu papa lañ suñuy tat comme ku ci mérite ñoom mag yu baax yooyu dinañ la indiwaat ba nga juddoo. d'accord mais tey a yaakaar naa ne Sénégal yi gisatuñu Kouthia bi nga xamante ne daan nañ ko gis mu baal ma mais xolam sax dafa xaw a ñàkk. waaw parce que xam national bu ko a ñàkk <laughs> man xamee la woon nii kii rasul yow ku la formé bi nga jénnee fee gën nga paqe de Kouthia Kouthia national dañ koy gën a bëgg te tey lañ koy gën a bëgg mm-hmm. billaay tey la gën a neex sénégalais wax yu ah, gis ko ITV moom dafa mel ni waa ITV. <laughs> Eh, safulaay Kouthia daal ngi noonu wax naa leen moom comédien ci lay uh-huh. añ ci lay réer lépp comédien la bala ngeen koo comprendre déedéet waxul waxeet moom comédien la. mais loolu mënuñu ko jàppee comédie <laughs> barki rasulaay aji yow mii est-ce que Kouthia du la kar fii génn maa ngi koy woo day ñëw rek moom bombardé la Kouthia nit ku baax mm-hmm. loolu muy mm-hmm. wax yëpp nee naa la Kouthia c'est le Kouthia national mm-hmm. Kouthia Sénégal Kouthia TFM këram la mënu ko bàyyi moom mënu bàyyi TFM comme ñun li ñu dal ci TFM virus la suñu deret la nekk tayuñu ko luñ fi mën a def ak luñ fi mën a waxee TFM suñu kër la te suñu kër rek lay nekk d' accord mais wax yu rëy <laughs> sax yow ko conseil ci àdduna loo xamante ni moom nga koy wax lan lay doon la bu xasee génn sama la Kouthia sama càmmeñ la Kouthia sama xarit la Kouthia sama collègue la mhm. amuma lu ma koy conseil ndax moo ma jiitu ci métier mi te ku la mhm. jiitu ci mm, teen bi ngay rootee moo lay woon fooy takk sa gocc amul lu may conseillé Kouthia <laughs> lu dul di possible di kontaan ci moom nekk fan-fan nekk koo xam ne tamit comédienne la et je suis fière lépp loo xam ne comédie da koy laaja ku ma ci coupe ma fay la ci bu baax dañuy xam ne dafa a naqari deret te itam bañkat la dafa bëri li nga xamante ne daf koy bañ moo tax sax parfois nekkam ci télévision Futurs Médias du xaw a neex est que euh, kàddu yooyu man de gëwuma lool Kouthia amul benn naqari deret Kouthia li ma la wax rek comme comédien la te comédien rek lay ñaari bàyyi dem bu nekk si moom ñetti fan mu laa xalaat waxuloo ko déedéet ah, la nemmee Sénégal yow du loo wax ne sénégalais yee ko wax sénégalais yee ko wax <laughs> yi bàyyi leen wax ji te seetaan suñu mbir d'accord ah. ah, macha allah yaakaar naa ne yéen ñi seetaan jamono ji am ngeen mbégte bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ni moom la aji wax gërëm daal di yëkkati ba tey rek ñu daal di wéyal da xam naa ni animation bi gërëm ginnaaw animation bi dërëm lan lay liggéey ndax ku ci nekk am na benn business boo xamante xëy na yaa koy def mm-hmm. mais dërëm euh, xamuñu ci lan lay nekk ginnaaw animation bi dërëm lan lay def euh, rock show Boucha Oro yi ngay gis si terrain bi mm-hmm. loolu laay def camion rock show publicité yi dama am sama groupe dërëm essayer de ci loolu laay yëngu képp ku am promo boo xamante ne koy def ci terrain bi marché yi yëpp dama koy def si mm-hmm. loolu laay yëngu ak ci loolu laay yëngu. d'accord macha allah am na solo mais ajaratu du ma la bàyyi ba ndax dañuy euh, waxtaan ci lu jëm ci wàllu milieu bi ba tey ndax gis nañu euh, ñi nga xamante ni ñooy ay talent la ñuy nekk dañuy mën li ñuy def xam li ñuy def te duñ leen jël ci télé yi duñ leen jël sax ci place yu baax yi mm-hmm. euh, lan moo waral loolu parce que ñu ci bari dañuy faral di wax ni sax parfois bralon mooy tax nga egg ci yenn niveau yi est-ce que dañ koy dugal. man de gëwuma loolu. xamal tax gawuma ko parce que mm-hmm. man bu doon branloo rek du yegg Mhm. parce que awuñu baraanlu yàlla mooy baraanlu yàlla yàlla suñu borom lu mu natt ci jëwu nit nit manu ca dara mhm. tey ji bu tee yàlla tuddoon ne tey aji jóob sa pepp nekk fii gisuma lu koy tere lekk si sa pepp bu nekkul fii gisuma looy tax ba nga lekk ko nit ñi nag ñoo dañu gëm yàlla mhm. te wóoluñu ko yàlla moo nekk fépp tey ji nit ñi ku fi sa ceeb jeex nga jóge fi de maa la wax lii mhm. fi sa ceeb nekk nag nekkal ba kirikoro di nga ñëwaat ndax am na ñoo xam ne ñun ñëpp dañoo dox daje kenn mhm. dëkkul ak sa morom xëy daje fi yàlla boole suñu wërsëg muy mhm. sa tey boo amoon message bi nga xamante ni danga koy lancé ñi nga xamante ni ñoo euh, ci métier bi ndax bëri na ay jafe yi nga xamante ni animatrice yi dañ koy faral di dund bëri na li nga xamante ni wax dëgg yàlla saa su nekk itam bëri na ñi nga xamante ni daf leen di sonal ñenn ñi dinañ leen liggéeyloo duñ leen fay ñenn ñi dinañ leen doxloo dawloo leen def leen defloo leen lu nekk te duñ leen fay tey dërëm bu amoon message bu muy lancé ci li ni mel ndax métier bi tam yombul euh, li ma leen di kii rek mooy gis nga euh, bu fekkee ñëpp dañu bëgg a nekk leen loolu day métti mhm. Sénégal ñëpp mënuñoo nekk ay comédien ñëpp mënuñoo nekk anima ñun koy ñoo raw en mhm. ñun ñoo raw Inde parce que ñëpp ñu tekki ci benn métier mm-hmm. mi ngi mel ni làmb ji rek xam nga làmb dafa dem ba saturé ñëpp bëgg a nekk mbër te ñëpp tamit bëgg a nekk animatrice il faut mm-hmm. ñenn ñi def naka su dul noonu te du mm-hmm. tax ñu nekk ko nag ndax yàlla mooy tëgg nitam def ko la ko neex ak la mu bëgg doon tey jii tey ma nekk mbër tax nga nekk mbër am na ñu ne ci mbër làmb ji boobu ba léegi di entraîné ñoo ñoo njëkk ca saalu entraînement yi te lekk ñu ca naanuñu ca kazalika animation rek am na ñoo xam ne ñoo dàq animé Sénégal ba tey kenn xamu leen yàlla mooy bind ay nitam def leen li leen neex teg leen na leen neex dërëm mii sama jàmbu xeeblu bi tey animatrice la kenn du ko ëpp anima kenn du ko ëpp bës si animation te pourtant li ngay wax laay wax mais yàlla mooy séddale ay cëram ku nekk sa cër moom ko rek te nga respecté ko. macha allah am na solo ñu ngi waaj dugg nag ci euh, combat yu am solo mu nekk ci diggante Balla Gaye ak ki nga xamante ni euh, moom moo ñoom ñaar. ñoom samay mbër lañ ñoom ñaar ñëpp samay frère lañ ñoom ñaar ñëpp samay frère lañ wax dëgg yàlla ndax man dama am ay rakk mbër am ay magu mbër comme képp kuy bëre ci làmb ji rek jox naa la ci te def ne que le meilleur gañ aw ma ci mbër am mënuma cee jox kenn faveur parce que xam lu tax dégg li ma la wax ñoom ñëpp samay frère lañ mhmm. ñoom ñëpp samay frère lañ voilà gërëm yàgg may dem làmb di bëri mhmm. Baye Pël Mbër sama rakk la mhm. Rawane 2 sama rakk la ñoom këll ki parcelle Modou Lo sama rakk la mhm. Balla Gaye mii moo yoroon sama rakk bu góor bu mhm. góor bi si écrim ba mu mën a bëri mu doog ñëw mu ñëw fii mu doog ñëw parcel ah naka nga gisee physique Balla Gaye jamono ji sama rakk bi yàlla bu ko cat euh, jiitu si limu mu a def mais ku am fulalu ku am fit ku am njàmbaar yàgg a def njàmbaar te si làmb bi comme dama koy ñaanal wér rek ba bu bis baa mu mën a taxaw def na mu daan def bégal ay ñi nga xamante ñooy ay soppem que zaalika tamit booy ñaan maa ngi koy ñaanal moom it wér sama rak la mm-hmm. maa ngi koy ñaanal wér di ko ñaanal moom it tubarkàlla mu respecté magam parce que nit bu la jiitoo ci dara da ngay respecté mag ku la jiitu ci dara da nga koy jox cër boo ko joxee cër la nga bëgg nga am mm-hmm. ndax Balla amatul ci làmb dama ko xam parce que gis nga ne Balla <laughs> maa ngi bëgg a yàgg ci làmb ji mm-hmm. du ma am amateur làmb la damay dem toog te tribune di leen seetaan mm-hmm. comme xam naa làmb d'accord te Balla sant combat Balla Gaye nga rek tout restement mm-hmm. Balla Gaye Modou Lo sama rak boobu yaa gën xam ki may faral kay waaye nag ah ñoom ñaa ñëpp sama rak lañ mais nag euh, euh, xañe nee ragal féete day xañe wërsëg ku la gën a jege gën a yay. gën waaw moom laa faraloo. yow yaa wax de <laughs> nee naa samay frère lañ que le meilleur rek mooy gagné. ñun ñëpp samay frère lañ nag Modou Lo du ma romb parcelle. Mhm. te daf may fekk ma taxaw di xaar oto mu dugal ma si oto mu yóbbu mu sama buntu. comme mhm. sama rakk la. kon ah, que ah. sama rakk la. sama rakk la di ànd ak samay rakk lu xew sama kër yaay mu teew. Mhm. def ci fulla ak jom mook samay rakk tëdd leen di tàqale. parce que ñoo bokk lu ñu bëgg ñoom ñëpp ay mbëgg lañ kon bu ma sañoon tey booy la dama koy ñaan rek mu respecté magam parce que nit ki bu la jiitoo ci dara li ma waxoon léegi rek danga koy jox cër soo ko joxul cër rek laax-lakk la te loolu conseil la bu ma koy jox comme mag ak rakkam mm-hmm. mm, magam la moom mën na bëgge champion la bë daan na ay champion am mi ngi yoon bu baax mm-hmm. mais day ànd ak respect pour ñi nga xamante ne ñoo moo ko jiitu foofu ak nit ki loo mën a mel te amuloo respect mhm. yàlla du faral kuy tooñ mhm. am na mbër mu ma ko fi waxoon muy bëreeg sama rak fekk ma ca tribune ya sama yoon nekku ci na ñoom ñëpp samay rak lañ mhm. fekk ma ba ca tribune ba saaga mbay guy gi mbay saaga ma saaga bu ñaaw waaw di ma saaga ma wàcc ba foofu sama rak daan ko daan bu rëy xar ko muy rawaan deux waaw bi mu ko naanee ma demaat fekk ko mu jooy ma tiim ko ne rawaan daanu la dangaa mën a toog te tooñ yàlla àndul ak kuy tooñ mm-hmm. parce que man ni saak saag mun naa man ko rawaan indi ma fi yéen ñaa ñëpp indi ndax samay frère ngeen mm-hmm. ni may supporté rawaan laa lay supporté sama rak la nga ñëw ba fekk ma samay nawle daggal ma daggal bu ñaaw te dëgg la rawaan daanu ko parce que xol bu tàng rek mën naa daan bi nga tal kuy jooy na ma tal taluma mm-hmm. macha allah eh, am na solo ñu dem ci actualité bi nga xamante ni moom moo mujj. Eh. ndax gis nañ jamono ji itam coow bu wax dëgg yàlla topp na eh, bu baax a baax ñenn ci ñi nga xamante ni waa Faramaren la mu bokk ci ki nga xamante ni moom moo di Bambaly Seck ndaw suñuy wax ci daal di ko jiñ ak ëmb. Hmm. mais li ci gën a waar mooy Bambaly Seck dafa nànk ni jurul doom bi tey gërëm jàngatee jigéen bu ëmb wëssin jiñ la biir nga ne nga ne ko nga ne ki nga xamante ni moom di jigéen ki naka nga jàngatee man de su ma nekkoon ku jigéen kay place mhm. ku dama jël sama doom rek uuf suturaal weer na doomam mhm. te woy wudul fay woy woy wudul fay ci àdduna la defal doomam mhm. ndax doom ji ku ko mës a xoolate ak ku mu mënti doon istu fay la ci bopp nit ñi ak xalaatu nit ñi ndax da sa mamaati maam sa danaan def dara ñu naan mama diw moo fi defoon man comme man su doon man la bala bu jege ma dinaa uuf sama doom jur ko te duma génn ci benn réseaux sociaux di wax lenn parce que loolu póotum biir la du lu ñuy weer ci kaw yaa ngi dégg yedd naa ko yedd naa ko yedd naa ko moom Dida mhm. génn bu baax mooy këni man xaw ma ko dama ko yedd comme par nii rek parce que doon man la du ko def mhm. sama doom damay toog ak moom ma nekk papa ma nekk yaayam mhm. jiiñ naa la ko quatre ans jëloo ko ba léegi doo ko jël dinaa ko toog def ko nday def ko baayam def ko lu ma mun am ma bokkook sama doom te xam ne yàlla moo ma ko cëral mais lii muy def ne weer boppam la weer doomam te woy wudul say la indil doomama même bu ko fi ne nii bambaali nangoor tamit euh, amatul sens parce que xale bi ku ko xool rek sa xel dem ci wax jooju ndax wax boobu ñaaw léget góomu léget la du effacé wu mhm. nañu jigéen ñi daal nañu nañu bu baax suñu doxalin mhm. mais est ce que xale bi kii de tëb moom moom itam dégagé responsabilité bu fekkee moom la ndax warul woon a nangu laataa moo siiw internet waaw Bambaali góor la gis nga lu ñu mën a wax rek dañ naan góor góor la gàcce bi rey góor bi rey jigéen reyul góor te xale bi jigéen la te daa ñaan yàlla am jëkkër sëy man waxuma côté Bambaali Seck dama ko tëb parce que góor la góor la Sénégal fii góor ñi liñ leen ñu muñal duñ ko muñal jigéen kon jigéen ñi rek lañ mën a waxal xale jigéen ñi nañu respecté seen bopp fonk seen bopp te bañ di wutal seen doom yi woy lii woy wudul fay abadan la man nerew ma bambaali de parce que mm-hmm. loolu ñoom ñaar la mm-hmm. mais yaayu xale bi tiida mm-hmm. amul conseil d'accord du génn di wax day toog doomam mat ko nday mat ko baay xëy na tamit xelam foofu la toll parce que xelal du doy mais su doon man la daw ma toog la benn waxuma la sax ay quatre ans benn at rek na la nga ma du yow dootoo ko dégg sa àdduna ndax doom doom géej la rek kenn xamul kuy were safale tey jii mën naa nekk euh, ministre wala mu nekk président wala mu nekk leneen lu boobaa tey jii wax ju du effacé wu mm. xool gis loolu te yoolu yaay mokk ko indil mm. mooy moo tax góor jigéen ñi ñu war a góorgóorlu bañ a indi seen doom way fay mm-hmm. ndax suñu maam yi loolu lañ daan geer mm-hmm. pour indi seen famille benn way te kii tamit indil na famille am way mm. indil na doomam baat boo xam ne dañ mm-hmm. man daal loolu laaj laa ko góor góor moom góor la rek yow jigéen ñun jigéen ñoo war a réglé du benn euh, bës du benn bës bës la bës bu bon loolu du bës weer sa doom la ak weer boppam parce que defoon na ko ñun yëguñu woon loolu keneen ak keneen yëg te tey àdduna yëpp si jot monde entier weerul boppam weerul doomam mhm. daa tax mu régler solution comme weer na boppam mhm. nañ xoolaat li ñuy def ñun jigéen ñi bu baax a mhm. baax ñu xoolaat ko te delluwaat suñu xel bu baax daal allah macha allah am solo ajaratu ñu lay jaajëfal bu baax a sama question bu mujj nag eh, ajaratu yaakaar naa ne boobu moom di ma ci tontu ma si ak jooy bëgguma nga ma ak wax yàlla ab xol xam diggante gërëm ak way juróom jigéen tey sooy xool euh, diggante yaay ak doom man xam naa ci dara parce que dama judd sama yaay bi mu am quatorze ans la sëy si fii jógee Jurbel ñëw faas mm-hmm. ma juddu bi may juddu sama yaay quinze ans am ay mbokkam yu nekk ci dëkk bi amuma nijaay bu ma bu ko jàppale am mag bu ko jàppale moom sël mm-hmm. sama papa nekk tamit koo xamante ne polygamie la am na sama yaay mooy aw mais am na ñaar waat mm-hmm. te liggéey ba demeewul noonu mécanicien la woon bu nekk sutiba simp Afrique ma xool ne sama yaay man rek maa ko mën dimbali man rek maa ko mën a génne ci situation bu ma nekk maa ngi doon jàng maa ngi woon seem Ibrahima Thiaw mais bi ma xoolee ni jàng bi sax day tardé pour sama yaay faj yenn soxlaam dama ne fa ñukk jàng ba métti rek tar comme ñëpp yenn saay nga xëy ndékki yenn saay doo añ yenn saay na reer sa yaay di lijjanti nekk na sama yaay nekk une brave dame di jaay marsé Gueule Tapée su demee jaay lëjum ay lëjum ay géej la daan jaay man tam su ma wàccee école damay dem jaay la jiko xëy na benn bés ndékkiwul bu baax ndékki bañ xëy bañ a ma xëy jàngi école noonu sama xiis ba une ma wàcc dem marché dem fekk sama yaay da mu jaay mu dugal ma si ma dem togge ko mhm. sama ko toggee balaa trois heures faf nu ma xeeñee noonu laay demee école mhm. pour bañ tardé mhm. pour wan la ni amul jaar-jaar doo nekk dame de fer taman dame de fer noonu laa ko jàppale namatul ndékki parce que ma jaayee ngoon marché bu ma damay dem jël gerte gerte xott kii la may jëndal paanu gerte ma toog ci angle bi di ko jaay ba deux heures du matin mhm. ci la ñuy ndékki sama rak yi nammatuñu dara parce que loolu may jaay ni si la ñuy faj suñuy soxla yaa ngi dégg ku bëgg dimbali sa yaay mën nga koo dimbali jaay sa bopp mhm. parce que jaay ndox ngi fi jaay pastel a ngi fi jaay crème yooyu yëpp defal naa ko sama yaay pour jàppale ko bi ma demee nag ba mën a amal sama bopp salaire quarante mille après cent cinquante mille ba léegi nii sama yaay nammatul dara parce weer bu nekk dinaa ko jox la ma am yóbbu naa ko màkk dem na fees am na lu ay moromam amul moo tax ma ne xale jigéen nañ góor góoru pour jàppale seen yaay parce que boo xëyee xëy rek tey dama war toog ci bureau tey dama war a mel ni ma nekk duulee il nga nga ñafe sa jaay gerte jaay géej nekk ci un waaye xëy bëgg nekk vingt moo tax mbëtt yi bar tey olof boobu waaw ah, baax na ajaratu euh, am na bu jigéen jaay may wax que ni boo mm-hmm. ah, dëgg yàlla yow <laughs> dangay indi ay problème yo <laughs> aji mm-hmm. aji sama yaay wa dëgg yàlla femme bu brave la boo mm-hmm. xamante ni muñkat la fu mu toog ba tey jugu fa lu muy metti metti moo tax léegi xale yoo nañ sama xol bi day naxari kay damay toog sax di jooy que man lan moo tax yàlla def ma taaw parce que man maay saawam damay wax bu may judduwaat caat lay nekk parce que caat dara waru mm-hmm. mais taaw dafa métti mm-hmm. parce que lépp lu métti li sa yaay di dund rek yow danga koy fekk mu yéen bu lew kem mm-hmm. defar ma duñ demee marché jaay sama yenn saay sama papa xëy yoru mais da ngay dem marché buñ jaayee ba wàcc ñun dugg suñu dugg yenn ko ci siwo indi ko kër ga togg naa togg lu neex jox muy taw ñuy taw bu baax ay palaat fu ne nga teg tey fu ne mhm. moo tax man la jaar-jaar il faut mu am mais tey ji ñu ngi suñuy étage mais soo jaarul fu metti doo mun a jaar fu neex mhm. macha allah bilaay bilaay àdduna amul benn solo parce que mhm. nag euh, xale jigéen ñi dañu war a góor jàppale seen yaay am na yaay yu sonn de parce que am na yaay yoo xam ne bu méttee duñu daw de dañuy toog seeni doom dañuy toog pour seeni doom comme ñooñu jar nañoo jàppale bu baax a baax macha allah coow li bari na loolu waaye nag jàmm rek si mujj te jàmm rek am ku yaayam liggéey moom day feeñ ci moom saa su ne mm-hmm. sonnatuma namatuma dara daal li xale yi di wax namuma dara sax kenn du ko wax dañ la koy waxal waaye nag daje wóorul bala nga xam sa waaye nga dem këram te mos nga mos nga mos <laughs> nga macha allah maa euh, a baax nga xamante ni yéen a ñu ñu ngi leen di bu baax a baax di leen wax tey jii ñu ngi dalaloon la jaajëfal bàyyi la nga tàggu ñi nga xamante ñoom ñoo sa bi nga xam ne jël ngay def sa métier mi dara ñaaw mhm. yal na yàlla wéral baat yow tamit fi nga bëggee a yegg yàlla yégala la fa coow li dafa bari rek mais bu mu téyee léppay baax ba ci Pape Djibril Fall sama frère boobu coow li bari na ci moom. Ah, li mu wax rëy na nag. dara la waxul. ah la mu wax dara la leen waxul parce que gis nga góob. soo koy faj kaañu dara la waxul. Mhm. parce que man sama gis man kenn gënu ma nekk comédienne je suis je suis une comédienne et je suis fière mhm. yaa ngi dégg mhm. fam ko waxee dañoo dagg lañ la nit ñi bëgg a ñu jox leen ko mais bu ñu leen joxoon phrase ba man xam naa Pape. ku yaru la ku dal la ku xam ni ñu wax. mais Sénégal li mu bëgg dégg rek lay dégg mhm. te man aw ma lu ma koy conseillé di koy wax ni euh, tubarkàlla macha allah euh, nit ku dal la ku mhm. la nee naa la man muusu TFM sax lu mu def ànd naa ci nga ne ko dagg parce que tey déedéet xam nga man daal xaw ku ko man ji def mhm. ak ku ko mën di def Euh, man xam naa Pape Djibril xam naa du nit kuy wax danger. déedéet mën nañ parce que tey jii tey mën naa wax fii dara yow li la intéressé rek ngay génnee mhm. am na bu comme ni ma wax phrase daal mhm. yow benn kii rek nga ciy dagg mhm. teg ko nit ki du xam ni phrase bi demee comme kooku lu lu lu lu ko woon yow yaa def loolu mais su fekkoon bàyyi na li mu wax yëpp man xam naa ne kooku ku ñu yar la ku dal la te du wax danger yaa ngi dégg même bu ko waxee moom waxewu ko noonu ku nit ñi jàppee te kooku ñoo bokk kër nee naa la TFM ku fi def loo fi warul def ak ka def lu mu fa def sama nit lañu te sama nit dama leen a mën ah, ah, ku ci dal ci kawam dangaa ñàkk liñ la woon rek nga gis mm-hmm. mais suñ la tegaloon la mu wax jàngale la te gis nga góom boo koy faj fekk xolli woo ko du wér te ay xale la doon jàngal mm-hmm. ay xale yu nekk ci classe te wóor na ma ne man xaw ma Pape Djibril mais man wóor na ma ne waxew ko noonu la ñor sénégalais yi intéressé ko rek lañ leen tegal moo tax mais su fekkoon déglu ñu waxam ba foofu man xam naa ne pas danger lay doon parce que du nit bu mel noonu ku yaru la daal léegi vidéo bu bu ñëpp dégg vidéo bu ñëpp xam dañ naan dañ ko monté montage sonn na de montage nag day sonn ndax sa genre gi dañ fee bari ay keteme yoo xam ne na rabaje rek ñoo fi fees <laughs> Eh, yow sama xarit yëpp mm. yaayu sëñ Fallou nuyul ma ko ndàggay doomu nay aw ban si sama waa ji borom Paris ñooñu samay xarit lañ mm. ak euh, taamareem borom États-Unis ñooñu dañ may dooleel bëgg ma lool bëgg li may def ak ku ci mel ni Jamila la voyante kenn du biige Njaay sama xarit ñooñu ci Facebook beeg ñëpp dañuy dugg di participer ku ci mel ne Bambi Senghor ñooñu ay gars yoo xam ne lañ samay fans bopp la bëgg bëgg dërëm bëgg lépp lu dërëm def taw mi sax ci fans yi aji jóg ci nga bokk <laughs> <laughs> <laughs>